ñi nga xamante ni ñu ngi bokk ci cadre unitaire de l'islam maanaam kuréel gi boole askanuk diinul l'islam daal nañu amal génn wisitub nemeeku foofu la ca mosquée Masalikul Jinaan ci samedi gile ci teewaayuk ñi nga xamante ni ñoo di ay kilifa diine bàyyeekoo fu nekk ci tarixa yi ci Sénégal moo xam tiijaan murid xaad mouvement réformiste waaye tamit chiite ak lu ci njiitalu ko Serigne Cheikh Tidiane si ibnu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin mi fesal ay kàddoom. Ah, ñu ànd ci nag di ci liggéey ak euh, suñu ay nawle jóge ci yeneen tariq yi ah, ñu jël sama jëmm ju tuuti di nag def ko euh, seen président waaye damay wax tuuti dama président serviteur la ndax ku nekk ci sa ay ñoo xamante ni euh, amoo lenn loo leen ëppale ci wàllu diine amoo lenn loo leen ëppale ci wàllu xam-xam ñu am taxawaay jël la teg la ci kanam ah, da ngay xam ni du sa am am wala du sa mën-mën moo tax waaye seen mbaax rek a tax ñu jël ma teg ma seen kanam ñëw fi fekk fii ah, liggéey bu am solo bi nga xamante ni sumb nañ ko ci juróom-ñaari at yaakaar naa ah, may wax ni liggéey bi eh, liggéeyu vision wu leadership bu ay kilifa muy mbooleem ah, xalif généraux yi fi jaar ci diggante bi ku ci nekk sa eh, sa vision jaar na ci mm-hmm. rawatina suñu maam Serigne Saalih Mbàkke bi nga xamante ni radiallahu taala anhu nga xamante ni moom la moom la euh, mbir mi soso woon ci ci magistère am jaare ci suñu euh, ma euh, bàyyi Serigne Sidi Maxtar Mbakke jaare ci Serigne Baara Mbakke Mouhamad Baara Mbakke ba ci suñu Serigne tey ji Serigne Muntaqa Mbakke nga xamante ni moom la yàlla teg ci bopp njaboot ji tey ah ñu ciy félicité nag mboolem ñi nga xamante ne dugal nañ seen loxo ndax damay wax ni vision la waaye vision boobu ngir mu mën a antu il faut mu am engagement euh, engagement communautaire waaw te engagement wu communauté mouride yëpp ñoo ci dugal seen loxo mun naa wax sax ni engagement jullit ci Sénégal yëpp la euh, rawatina nag communauté mouride bi nga xamante ne tey ñoom ñoo ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko samp ba mu egg ci fi mu war a egg tey waaye loolu bu amee it am na koo xamante ne moom la yàlla jaarale mbir mi ci loxo muy yow mii tey euh, ndax dama wax sànq euh, Ahmed ma ni ko ni ko sëriñ euh, Cheikh Bachir Abdoul Khader waxee ku ñu ko joxoon keneen nit mën na am du yàggee du du du du gaawee nii waaye du mel nii ma ne ko waaw ndax lii ku amul pas-pas ku amul ay pexe pour ay taxawal ko doo ko taxawal ci diir bi ñu ko di taxawale ak ci anam bi ñu ko taxawale kon loolu ci sa ci sa ci sa ci sa euh, mën-mën la waaye it ci ndimbalu mag ñi ñoo la tànn teg la fi xam ni am nga mën-mën bi am nga xarañ bi ba yàlla mottal liggéey bi ci sa loxo kon loolu dañ la ciy ñaanal yàlla fay la yàlla rek moo la mën a fay liggéey bi ma wax it ci benn bind bu ma bind ne lii ñu liggéey liggéeyu pour jullit senegal yëpp la Euh, sëriñ bi wax na ko keroog ci benn waxtaan bu ma dégg loolu moo ma inspiré sax ba ma ni ah ka tabax jàkka ñëpp daal di ne wala boog mu am ku ci am loo ci wax lu ñagas boo ku bokkul sax ci réew mi euh, mu sëriñ bi jóg daal ne lii kat bi bañ ko tabaxee jullitu Sénégal yëpp wala jullitu àdduna bi yëpp lañ ko tabaxee ma inspiré wu ci loolu daldi ne ku am xalaat tabax lu toll nii mënoon wax ni kat man maa am sañ-sañ wala maa am doole def ko nga am mbaaxu bo bo bo bokkale ko ak jullit yu Sénégal yëpp ñun amuñu lu ñu la fayee kon nag dañ leen ci félicité ci turu cadre unitaire bi nga xamante ni moom laa représenté ah, di ñaan liggéey bi yàlla na ko yàlla barkeel liggéey bi lu ñu fi ñaan wala lu ñu fi julli yàlla na ko yàlla nangu te ñu fi mu nekk nag sagul islam yëpp ko tabaraka nekk sagu jullit yëpp ah, di ñaanal yow yàlla gën a dëgëral sa taxawaay yàlla barkeel yàlla barkeel njaboot yàlla na ko jumaa ju taaru jilee ñi ko amal di communauté mouride di wane rek taarub mihrab ba nga xamante ne ñu ngi ko daal di defee wàllum or ak it leeraange guy jógee ci yenn ci ay saal yu ñu mën a màggalee sunu borom ci wàllu julli waaye it sooroor yi ñu natt lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay mètre daal di sëpp Dakar ak li ko wër